yenn saa yi mu yem ci boole ko ak di daw di wër jant bi suuf si dafa am aw yoon wu wërngalu wërngalu bu xaw a bu xaw a mocc la ku mel ne nen yoon woowu nag ci lay jaar di daw di wër jant bi at mu nekk mu am benn tuur wala ñetti téeméeri bis ak juróom benn fukki bis ak juróomi bis ak juróomi waxtu ak nangam minute yu nekk mu am benn tuur te kat du ëpp du manqué suuf si boole ci di jàng jëm ci jënub ci ndeyjoor ak ci simaal jàng googu muy jàng mooy waral li ñuy wax waaw jant bi dafa waaw mi ngi ci jënub wala mi ngi ci simaal suuf si mooy jàng fukki dërëja ak ñett ak ñaar fukki seconde ak juróom-ñaar ci ndeyjoor bu àggee mu tàmbali jëmaat càmmoñ ba àgg ci digg ba équateur jàllaat ci ci càmmoñ ba am fukki dërëja ak ñett ak ñaar fukki ak juróom-ñaar te li day waar mooy ci discipline bu mat sëkk la koy jaare du ko yokk du ko wàññi mu am mu ñetti mouvement yooyu te ñetti mouvement yooyu bokkul ak beneen mouvement bu nga xam ne moog jant bi ak biddiw yi ak weer yi dañ koo ànd di daw wuti biddiw bu ñuy wax kawkabatul jaasi wa shamsu tajri li mustaqarri laha jant bi di daw suuf si di ko dàq weer wi di ko dàq biddiw yépp ànd ak moom te li doy waar mooy distance bi nekk diggante suuf si ak jant bi distance boobu na mu ne na mu toll ci ay kilomètres bi yokk kon dafa mel ne suuf si ci biir mouvement yooyu teewul am na beneen mouvement bu nga xam ne ah diggam ak jant bi la moo jant ba ñu tolloo fa vitesse ba tax jant bi du ko rawee lu ëpp loola mu ngoog ñu ànd noona suñu borom yàlla moom moo nas nas bu jekk boobu moo yab yab bu rafet boobu biddiw bu nekk am vitesse su mel noonu biddiw bu nekk di jaar ci aw yoonam li doy waar mooy ndax mos ngeen a dégg accident ci biddiw yi moonte ñun am nañu ay xel suñu oto yii nuy war ñaata accident mooy am ci àdduna bis bu ne am nañu ay goudron am nañu code de la route am nañu ay feu am nag suñu xel bëgg suñu dund gi lool bëgg suñu jàmm lool bis bu nekk nanga mi accident am ci Sénégal ci àdduna bi jant beeg suuf seeg weereeg biddiw yi amuñu xel amuñu xel amul kenn koy conduire ñu àndandoo ñenn ñu ànd kenn par kenn biddiw yi am na ci yoo xam ne ñoom doo nga ànd am na biddiw yoo xam ne par ñaar la ñu ànd am yoo xam ne par ñett la ñu ànd am na ay biddiw yoo xam ne yu mbooloo lañu mën ngaa gis ci asamaan si majmuatu ay biddiw bu ñuy wax yi ñuy wax aqrab aqrab mooy jiit nga gis ko mu mu yor melokaan ak fett melokaan jiit ju ju gàddu ak fettam ak ensemble ay biddiw yu bari ànd ak moom ñoom ñëpp ñu ànd di daw te mosu ñoo tase benn yoon kenn du wàcc yoon nga xam ne moom la ko yàlla tëralal subhaanallah ana ku nas boobu nas bu jub bu rafet yàlla subhaanahu wa taala kooku mooy borom kattan bi loolu mooy xaaj bu njëkk bi ci xaaj yi dogalu sa borom yàlla subhaanahu wa taala ak discipliné bu rafet bu mu discipliné univers bi bu ko defee nit ak bàyyi ma ak gàncax ñoom itam seenu safu xool leen rek mbokki jullit yi nit kii di wax ana lu mu doonoon toqantu man yu boo nga xam ne bii fu mu taq ñu ñu fobb ndox mu tooy mu sedd mu xeeñ saa borom yàlla ci xam-xamam ak kattanam mu fab ndox moomee def ko ci ay ndab ay zuruuf nu ngoog ay zuruuf zamaniya wa makaaniya ay ndabi jamono ak ay ndabi barab teg ko ci aw yoon muy muy soppiku di soppiku di soppiku ba ndox moomee wëlbati ku nekk nit kuy wax di noppi di ree di jooy di kontaan di mer mbokk jiw yi ana luy kontaan kontaan mooy lan mer mooy lan nit ki jamono yi muy mer yan cër ci moom ci biiram moo moo waral mer moomee ak nu mu ko warale ak dégg akub gis lan moo ko yor dëgg-dëgg ci doomu aadama mbokkum jullit ñi bi nga bi la woowee nga ne xaa li ne xaa ana fu mu nekk ci yow ak ban cër nga laaj ci saw yaram ba mu ne xaa la lépp natub sans borom yàlla nit bu fekkoon ne xam na boppam dana yéemu nit ci boppam du ma wax ne ab monde la nit ëpp na ab monde ëpp na ab monde ndaxte ay monde da nekk ci biiram suñ jëlee rek benn benn monde bu ñuy wax al jihaazu tanafusi mooy mooy mooy appareil respiratoire nga gis ne appareil boobu nga xam ne moom la nit ki di noyyee ak appareil circulatoire mooy appareil bi nga xam ne moom mooy fab deret ji ak yemu àndal mu ci jaar di wër ci biir yaram wi soo jëlee ñaari appareil yooyu benn bu nekk ci appareil yooyu dafa am ay ay ay ajza ay partie partie yoo xam ne boo ci jël fekk ko daanaka muy ab monde boppam boo ñëwee ci appareil respiratoire xam ngeen ne mi ngi tàmbalee ci bakkan yi bakkan yi bi ngay noyyi bakkan moo jëkk a jël ngelaw li ngelaw li noo ko jëlee ngelaw li ci jaww ji la ne fii bu nu xoolee du nu gis bu nu làmbee du nu daj waaye yàlla daf nu fee defal ak xéewal goo xam ne dañ koo soxla lu raw li ñuy soxla lekk ak naan lu raw li ñu soxla ndox mu nuy naan lan soxla xéewal gu nu yàlla defal fii te xéewal gi bu nu xoolee duñ ko gis bu nu làmbee duñ ko daj te montit noo ngi koy jëfandikoo waxtu wu nekk biir jàkka jiinu ne yàlla sol na ko ba mu fees dell ak ay gaz gaz yooyu ba ca gën a am solo mooy gazu oxygène gaz boobu su ñàkkoon ci jàkka ji léegi ñun ñëppay dee ci saasi waaw lu ko fiy dugal mbaaxu yàlla subhaanahu wa taala te waxtu wu ne noo ngi ci noyyi te luñ ci noyyi fab ko dugal ko suñu biir dañ koy génn fekk mu nekk gaz carbonique yàqu na baaxatul mu jëlaat leneen tamaaman comme ni ñuy jëlee aw ñam di ko lekk muy rees nekk ay dem cabinet ñu def ko ca duus ba jël am ndox di ko naan mu rees nekk am saw ñu def ko ca duus ba noonu la ñuy jëlee gaz noyyi ko mu dugg ci biir liggéey ab liggéeyam ci ndigalal yàlla yàqu doon ay dem cabinet yu ñu tudde gaz carbonique génnaat ci jaww ji ñu sànni ko jox garab yi garab yi jëfandikoo garab yi ci ndigalal yàlla akub nasam jox na oxygène ñu jëfandikoo subhanallah subhanallah subhanaka ya rab bii buur moo bëri kàttan bii buur moo mën a nas bii buur moo baax moo yiwan moo tabe nit ñi nekk di mooy ndigalal borom asamaan ak suuf bu yàlla téewoon oxygène nu ñuy def bu ko yàlla téewoon ñetti minute képp léegi àdduna si far te nu noo ngi ni di tooñ rek yàlla defal nu xéewal googu te xamuñu ko sax fa ak yeneen xéewal yu ñu demee nu bàyyi ko fi di sant keneen saa borom yàlla nee na doomu aadama de def na lu mu wóolu woon a def maa ko biti man yàlla mu bàyyi ma fi di jaamu keneen maa ko jox ay xéewal mu bàyyi ma fi di sant keneen mbokk yi noo goreeti mbokk yi noo goreeti waaye oxygène boobu bakkan bi moo koy fat mu mel ni ngelaw bakkan bi saa borom yàlla da cee def ay kawar def ci ci biir der bu ndaw bu telef bu sedd bu toy xib ba nag wut ay xudat yu nga xam ne dañuy génne ay ñendoxit di ko tooyal ngir yaakaar ne ñendoxit yooyu pour sonal nu rekk la déedéet déedéet ñendoxit yooyu dafa am rôle bu muy joué day tooyal der bu ndaw boobu ci biir bu ko defee jaww ji ngay noyyi ngelaw li dëgg la tàngaay bi mu yore wala seddaay bi mën naa ëpp mën naa manqué ngelaw loolu itam mën naa set mën naa ànd ak poussière bakkan bi di ab appareil bu nga xam ne yàlla da koo jox ndigal ni ko kaay ànd ak sama jaam boobu ñuy wax Abdoulaye Souré nekk ci ndigalam kenn ku nekk ci ñun ab Abdoulaye Souré la yàlla poose ci moom appareil bu ñuy wax bakkan ne ko nekkal ci ci disposition Abdoulaye Souré ngelaw li muy noyyi dee ko segg dee ko segg ba mu mel ni war a mel nga noyyi ngelaw ngelaw li dafa ànd ak pënd kawar yi kawar yi bakkan bi mooy daal di téye pënd bi mu ngoog lu ca jàll der wu ndaw woowu ci suñu biir moo koy daal di téye ci pënd ba der wi dana làmb gaz bi dana làmb ngelaw li boo xamee ne bi ngelaw li tàng na ndox moom nga xam ne moo nekk ci biir der wi tey ñendoxit yi mooy daal di wàññi tàngaayu ngelaw li ba mu tolloo ak ni mu war a toll su fekkee ngelaw li dafa war a sedd su paasee der boobu am na ay sidit yu ndaw yu def deret te der bi dafa tàng ak lekk nga ci xew waxtu bu nekk bu tàngee day day sofe ngelaw loolu nga noyyi ba mu tàng tàng bu yem gis ngeen boobu boobu so boobu so lu ñu ko tuddee sax chauffage de ah chauffage appareil bu nga xam ne bi moom bu tàngee mu seral te bu seral seddee itam mu tàngal nun li mu noonu mooy climatiseur nga taal ko climatiseur ndax day tàngal am day seddal ah day seddal rek mën naa tàngal la déedéet day seddal rek bu néeg bi tàngee daal mën na koo seddal waaye nag rôlam foofu la yem bu tàngee daal biisal mu daal di sedd ba day xam noonu tam chauffage bu nga xam ne bii boo ko taalee mën naa tàngal néeg wala wata gi waaye ndax mën naa seddal déedéet day tàngal rôlam mooy tàngal bakkan nag moom benn appareil be waaye dafa ànd ak luy tàngal am luy ànd ak luy seddal ba nga xam ne ngelaw li nga noyyi du ko bàyyi noonu da koy contrôler bu tàngee mu seral ko bu seddee mu tàngal ko bàyyi ko mu jàll bu jàllee am na tiwo bu nga xam ne bii moo am ci lay jaar wàcc ci xëtër yi su wàccee ci xëtër yi fekk fa deret xaw ma ndax mbokki jullit yi xam ngeen ni deret ay camion la ak ay soldaar camion yi dañuy sëf xéewal yóbbu ci biir yaram wi subhanaka ya rabb yaa mun a im sëf xéewal yóbbu ci biir yaram wi sëf wërsëg wërsëg woo xam ne du ceeb du ndox du yàpp moo ëpp importance yooyu yépp wërsëg ko mooy gaz oxygène mu ngoog ka def deret bal yu ndaw yee xonq ngir sëfi yëf yee weex ngir rek reyi noon mu ngoog deret ay bal la yu xonq ak ay bal yu weex ñu koy wax globule rouge ak globule blanc bal yu xonq yi ñooy sëf oxygène bi ba ñu bu bu ngelaw li ñëwee ci ci xëtal yi rek dana fekk deret ju doy ju tasaaroo ci biir pax yu ndaw yooyu nga xam ne moo ne ci xëtal bi boo ko defee fekk fa fekk fa lim bu doy ci ay globules rouge ñu daal di yenu ba diis ci oxygène bi daal di jàll daal di jàll bu jàllee ci xol bi xol bi ab pompe la xol bi ñu ngi pompe waxtu wu nekk mi ngi def dug dug dug dug ku teg sa loxo ci sa fii ci sa dënn ci wetu càmmoñ gi boo dégloo bu baax da nga yëg ni muy defi nii day nëbbu ak di ngi bërci ko moo xol boobu moom lu koy yëngal mbokki jullit yi wax leen ma ab xol li tax muy nëbbu ak di ngi bërci ko lu lan la sama baaraam yi sax man na maa wax ne ay siddit moo ci nekk maa ko jubloo ngëpp maa ko jubloo tàllal waaye xol ba nag moom jotiwu ba ca te itam yëguma benn soppandiku bu ma def ngir xol bi nëbbu wala mu tàllalu xol bi jaamu bi yàlla la ab appareil la bu yàlla jox ndigal ne ko nekkal ci biir Abdou Aziz Touré kenn ku nekk ci ñun Abdou Aziz Touré la nekkal ci moom liggéey liggéey ba la sant ci moom te xol bi du du mooy yàlla de du jaat ndigalal yàlla de bakkan bi du jaat ndigalal yàlla de deret deret ji bal bu nekk ci bal yu xonq yi ak bal yu weex yi te bal yu xonq yi ñooy yenu gaz bi bal yu weex yi ñoom xam ne li seen métier bu fekkee am na mindaafoon yu dugg ci biir yaramu nit ki te day am am na ay mindaafoon yu tuuti lool ba boo xoolee doo ko gis boo làmbee doo ko daj te da nga koy noyyi ak di ko lekk ak di ko naan ñoom bu ñu duggee dañoo bëgg a dund ci yow dañ laa bëgg a rey saa bu ñu duggee bal yu weex yi seen liggéey mooy xeex ak mindaafoon yooyu rey leen subhaanallah kenn ku nekk ci ñun yàlla wëq na ak quartier quartier ay soldat ci biiram yaa abdallah ittaqillah yow mi jiite quartier bi yàlla wëq quartier ci sa biir mu lay garde yàlla jox ndigal quartier googee ñu ne ci ndigalam yow yàlla jox la ndigalal jaaral fi ma bëgg nga jaar fi jaaral ci laa ilaha illa allah muhammad rasulullah jëfeel alquran ak sunna nga lànk jëfewoo ko bañ jëfewoo ko te yàlla nga la boole quartier goo xam ne gi ñu ngi sa biir bi jëfe ndigalal yàlla cey buñ defoon ni yow cey bu deret defoon ni yow cey bu bakkan defoon ni yow cey bu xol defoon ni yow nga daal di jeex léegi subhaanallah maa akramaka yaa rab yaa rabbi yaa baax yaa rabbi yaa bari ay xéewal noo mën a tooñ noo ko rek mbokk jullit yi nit a ngu noonu di ab monde te lépp li day waar li day waar mooy loolu lépp yàlla nga ko sàkke ci ndox yàlla moomu bu nee bu nee nit su màggee ba màggat bu bu deewee ba ñu suul ko bu décomposé ba def suuf mën naa koo dekkalaat dañ koy wedd am na ñu xam ne ñu dañ ko weddi nee nañu ko dee dee nga rek nee nañu nit ki bu deewee ba ba ba ba yax ya sooy ba yax ya décomposé wu ana na ko yàlla di di dekkalati am na laaj bu jiitu boobu laaj ba jiitu boobu mooy ndox ndox ma nga xam ne ndox man nii rekk la ana fu yàlla jaar ak moom ba mu doon nit kuy dund di gis di dégg di dem di ñëw di wax di def kaman lu jëkk la mënu lu mujj li ah kay subhanaka ya rab rabbana innana amanna bima anzalta wattabana rasula faktubna maa shahidin yow suñu borom yàlla gëm nañu li nga wàcc gëm nañu ne yow rek yaay buur gëm nañu alquran ak sunna sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam gëm nañ ne lépp lu wuuteeg moom du dëgg te jubut te baaxul te itam noo ngi beesal sunu dogu ci topp sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga topp yaa rabbi yàlla na nga dimbali ban sax ci loolu mbokk jullit ñi dundug doomu aadama ak noonu ak dundug bàyyi ma ak dundug gàncax luñ ci jëloon bëgg caa waxtaan day gudd loo fa seet fekk na mu sosoo na muy màgge na mu continuer di fi nekk ak na muy mujj jeex ak nu ko yàlla di dellusiwaate lépp ay kiimaan lay doon te li ci doy waar mooy lenn lu ne yàlla da ko wutal ay loi yàlla da ko wutal ay loi ak ay yoon yoo xam ne du jàdd loi ya du jàdd yoon ya du sotti ko mukk walan tajida li sunnatillahi tabdila noonu moo tax dund gi lépp discipliné wu jaar ci yoon yi mu war a jaar jëm te fa mu war a àgg mu ngoog loolu mooy secret dogalub yàlla subhanahu wa taala moo tax ba dogalub yàlla subhanahu wa taala wa taala suñ ko bëggee taarif suñ ko bëggee définir dañuy wax ne mooy xam-xamub sans borom yàlla bu jëkk ba nga xam ne bii moom la xam ak nammeel bi nga xam ne gii moom la yàlla nam ma amal adduna bi ak li ci nekk ak li ci nekk ci ay mindaafoon ak ay mbir ak ay yëf ak i xew-xew ak na ko yàlla nattalee ci xam-xamam ba ak kattanam nga ba mu amee noonu ba noppi bind ko ci alluwa ju mag ñuy wax allawxul mahfuus mu nga loolee mooy dogalu yàlla subhanahu wa taala yàlla lu am moo ko xamoon na ko démb xamoon na ko démb moo ko amal moo discipline yi itam yoonu muy jaar ba am ak bu amee ba nekk ci kaw suuf na muy continuer di nekk ak bu fiy jógee kañ la fiy jógee ak nu mu fiy jógee loolee lépp ci sans borom yàlla la aju moo koy defee na mu ko neexee loolee nag mooy ab dogal boobu yàlla subhanahu wa taala bu ko defee loolu du soppi ku mukk du soppi ku mukk awalan ndaxte yàlla subhanahu wa taala xam-xamam bi yaatu na yaatu na xam-xamu bi yàlla dafa yaatu xam nga li ñu fa waxagoon ñàkkul ay xel yoo xam ne mën naa am tàmbali nañu di jaaxle ak di laaj ci seen xel waaw ginnaaw nangam nangam mooy mbiram kon nag nangam moom la ko waral ak nangam nu mu mën a amee yàlla subhanahu wa taala ab xam-xamam dafa yaatu aw yaatu win woo xam ne moo xal seeta tontu ci kanam incha allah laaj yooyu ngeen bëgg a laaj yàlla dafa xam mboolem li am waaw mboolem li amut waaye dina am yàlla xam na ko mboolem li amut te du am yàlla xam na ko yàlla xam na li am ba noppi ak na mu amee yàlla xam na li nekk di am ak ni muy amee yàlla xam na li amagul te nar a am yàlla xam na ne kañ lay am yàlla xam na dina am te xam na kañ lay am xam na bu dee am nu muy amee li nga xam ne amul te du am yàlla xam na ko ba xamaale bu doon am nu muy amee loolu lépp ci xam-xam yàlla subhanahu wa taala la boobu ba noppi kattanam ga itam kattanu yàlla ga yemul fenn dara du ko limité dara du ko dogale yàlla kattanam amul fu mu yem kenn ku nekk ci mindaafon yi am na loo mën ak loo tële même ñun yàlla subhanahu wa taala di ki nga xam ne moom ah man-manam yéemul dalewul fenn yéemul fenn lu ko soob loolu rek kay am lu ko soobul du am mukk yooyu ñaar buñ jàppee xam-xamu yàlla bi bi nga xam ne bi daj na lépp jàpp kattanam bi nga xam ne gi mën na lépp la ca war a topp mooy yàlla dafa tatte mboolem li am ak ay loi ak ay sunan sunan yooyu ñooy doxal adduna bi loi yooyu ñooy doxal adduna bi adduna bi li ci féete ci atamaan yi ak li ci féete ci suuf si ci nun ak ci bàyyi ma yi lépp lu ci nag yàlla dafa wutal dund ga la am yàlla da ko wutal ay loi yoo xam ne ca lay jaar nit ki ni muy màgge ay loi la am ni muy màggate ay loi la am ni muy dee ay loi la am ni muy dekkee ay loi la am garab nu muy saxe ak nu muy màgge nu muy tóotóore nu muy meññe leen lu ci nag ay loi la ko yàlla wutal mu jaar te yoon yooyee ak loi yooyee dara du ci sopp loi yooyu nag loi yooyu nag ak takke gu ko yàlla takke ak ay asbaabam lu sababam ñëw jaar ca loi ba la mu war a sabab daal di tojjanti ko ca loola takkoo googu ak kattanug yàlla ak xam-xamam bi ba tey bu la neexee nga ne mooy dogal dogalu borom bi subhanahu wa taala mu nga su ko defee nañ dégluwaat borom bi tabaraka wa taala mu wax ci lu nuy woon kattanam ak xikmaam ak coobaram ma asaaba min musibatin fi l ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dalika ala allah yasir saa borom yàlla nee na amul lenn luy dal ci kaw suuf moo xam nit la dal moo xam bàyyi ma moo xam garab amul lenn lu xew lu dal nit wala mel ni ndaaf mu dul nit ci kaw suuf ci yéen wala ci leneen lu dul loolee dal yàlla bindoon na ko démb ci ab téere yàlla ne dama koo jëkk a sàkk wuti yoon wa mu war a jaar door koo bi amal mi ngi mel ni rek tey boo demee ci Babacar Thiaw ne ko daa bëgg kër adduna bépp ak li fi nag ci ay nit ki bàyyi ma lépp na nga ko jàpp muy ak kër nga dem ci Babacar Thiaw ne ko daa bëgg ak kër Babacar buy defal kër gi bu koy réaliser day jékki-jékki rek andi brique yi ak ciment bi ak fer bi am day jëkk a defar plan dafa jëkk a defar plan plan ba mooy wax kër gi nu muy mel nu muy gudde nu muy yaatoo ñaata néeg lay am lu ciy doon salle lu ciy nekk chambre à coucher lu ciy nekk pantre lu ciy nekk douche waaye fu muy féete fu ab wc di nekk lenn lu ne ndax Babacar du ko def si kayit wi ah kay su noppee nag daal di jël nag matériel bi nag topp kayit wa sans borom yàlla loolu mooy misaalam walillahi masalul aala dafa jëkk a bind adduna ak mboolem li ci nar a xew ak lu ci nekk nu muy xewee ak nu muy day ak nu muy toll mu bind loo ko xalima gu mag ci allahul mahfuz ba noppi nag door a tàmbali nag di amal yooyee mu bindoon la yàlla bindoon dong nag moo mën a am lu yàlla bindul woon wéy na ak amam jeex na sans borom yàlla ne inna dalika ala allah yasir loolu lu yomb ci yàlla la suñu borom yàlla di wax mu ne wal arda madadnaaha wa alqaynaa fiiha rawaasiya wa ambatnaa fiiha min kulli cheyin mawzuun wa jacalnaa lakum fiiha macaayish wa man lastum lahu bi raaziqiin wa in min cheyin illaa cindanaa xazaa'inuhu wa maa nunazziluhu illaa bi qadarin macluum saa borom yàlla ne wal arda madadnaaha ne suuf si nun yàlla noo ko tàllal yàlla ne ne moo dénd suuf si moo ko tàllal moo ko moom ngaa yi suuf si ko ko moom ku ko sàkk ku moom adduna bi ku moom kër yi yàlla subhanahu wa taala kon boog yàlla moomu ci ndigalam lañu war a nekk ñun ñëpp suñu bëggee jàmm wal arda madadnaha suuf si nun yàlla noo ko tàllal wa alqaynaa fiha rawaasiya ma teg ci kaw suuf si ay montagne yu diis gann yu koy téye ba du sëkku si wa ambatnaa fiha min kulli shay ah li ngeen gis mu am ci kaw suuf ci ay gàncax ak i garab ak i nit ak i bàyyi ma ak i jinne lépp la fi am suñu borom yàllaa ko fi amal moo saxal gàncax yi moo saxal garab yi lenn lu nekk sama borom yàlla nee na maa yor magasin ya te du ma ko wàcce lu dul ci ab dayo bu ma xam loolu day tegtale discipline day tegtale tëral ab plan door a tàmbali nag di réaliser la nga tëralal fanaan mu ne inna kulla shay'in xalaqnaahu bi qadar nun yàlla lenn lu nekk noo ko sàkk sàkk ko ci ab limite buñ ko utal suñ borom yàllaa ngi wax ak yonente la Moussa summa jita ala qadarin ya Moussa yàlla di wax ak Moussa ne ko fàttalikul ba nga jaaree barab sàngam jaare barab sàngam booba booba saa borom yàlla dafa woo yonente la Moussa di ko yónni ca Firawna te Moussa di koo xam ne taxu koo am doole lool ci wàllu biti Firawna nag di buur boo xam ne moom moomoon Misra bari doole lool te saay-saay Moussa nag ni sama borom yàlla daal damaa ragal Firawna de damay bañ a dem mu rey ma sama borom yàlla nag di dalal xelam nettali ko aslëf ci ay passé moom Moussa ba àgg ci ne ko summa jita ala qadari ba noppi nag nga ñëw fii waaye yaa ngi fi ñëw ci kaw ab dogal mu ngoog kon boog lépp lu am rek mi ngi mën a amee ci kaw dogalu yàlla subhanahu wa taala wa xalaqa kulla shay'in fa qaddarahu taqdira yàlla moo sàkk lépp lépp lenn lu nekk mu nattale ko mu toll na mu war a toll mel na mu war a mel wa kaana amrullahi qadaran maqdura mbir yàlla nekk ab dogal bu ñuy nattale mu ngoog feneen suñu borom yàlla di wax sabbix sabbix isma rabbika al a'la alladi xalaqa fa sawwa walladi qaddara fa hada sabbix yow jaam bi sabbaalal yàlla subhanallah waxal subhanallah subhanallah sabbaalal yàlla jaamu ko kañ ko su jootal ko nangul ko wommatul ko yàllaa ko yeyoo moo ko moom sabbex nangulal yàlla subhanahu wa taala jaamu ko sabbaal ko sabbaal si tur yàlla wu kawe wa alladi yàlla mi nga xam ne xalaqa moo sàkk lépp lu am fa sawaa mu yemale ko mu mel na mu war a mel yemmoo ca na mu war a yemmoo yàlla moo sàkk nit def ñaari loxoom yi ñu tolloo daf ñaar tànkam yu toll ñu tolloo bu neexoon yàlla benn tànk bi day gudd ba toll nii mu toll bi ci des gàtt ba toll ne xasab kon du ñu sonna bu neexoon yàlla ñaar loxo yi benn bi ñaar te benn bi kon du ñàkk xoroma xalaqa fa sawwa yàlla bind aw fas yàlla bind ab xaj xaj yàlla def ci moom demal di wattul nit alalam ak ay bagaasam ak këram yàlla bind fas def ci moom doole ju ëpp sunu doole fuuf ba noppi maynu nun ko mën a jekkoo ba mën koo takk aw watiir mën koo takk aw aw sarat di ci teg lu diis yàlla sàkk weñ gu ñuul sàkk essence ak pétrole dem ci xelum doomu aadama ne ko boo fa bee weñ gii nga lonkal ko mu wërngalu gii kaara gii am ay bëñ gii nga bënn ko dugal ci biir ab ay kuru boo biisee boo defee nii boo sottee essence wala gasoil boo taalee mu takk dem ci xelum doomu aadama ne ko produit chimique yi produit sàngam ak produit sàngam ak produit sàngam boo ko composé ci pourcentage sàngam bu ko nit kuy boppam di métti naanee bopp bi set subhanallah mbokk jullit yi tubaab ndax dafa dafa dafa créer aspirine buy faj bopp bi métti am dafa découvrir aspirine buy faj bopp bi métti découverte bokkul ak création ana ko sàkk produit chimique ci àdduna bi yàlla tubaab bi nag dafa composé ci xamalug yàlla yàllaa xamal tubaab bi waaw yaalamuuna zahiran min alxayaati dunia mu ngoon yàlla moo xamal yàlla moo xamal tubaab bi ne ko produit chimique sàngam ak sàngam ak sàngam boo ko composé ci anam sàngam boo ko defee ci bët bu xonq mu weex boo ko defee ci bët bu metti mu sedd mu ngoog bu ko defee kon loolu mooy xalaqa fa sawwa walladi qaddara qaddara yàlla moo nattale yàlla moo nattale moo tëral relation bi tax produit chimique sàngam ak sàngam ak sàngam di faj bopp bi metti yàlla ko def noona fa hada ba noppi nag mu wan ko doomu aadama wan ko ko ne ko fabal jëriñoo mbokk jullit yi loolu mooy genn wàll gi genn wàll bu njëkk gi ci dogalub yàlla dogalub yàlla mooy maanaam sàkk gu yàlla sàkk univers bi lépp discipliné ko lépp wutal ko ay loi mu jaar ci loi yooyee di évoluer jëm fa yàlla bëgg am na itam doomu aadama ak ay jëfam ak ay waxam foofu itam ab dogal ñëw na fa suñu borom yàlla bindoon na ne Abdou Aziz Touré ci bisu tey bii di gaawu di fukki fan ak ñaata ci koor gi ci koor gi ñaar fukk ci koor ah fukk ak juróom-ñeent ci koor gi ci waxtu wii Abdou Aziz Touré dana fi ñëw ah di toog fi daje fekk diw ak diw ak diw wax fi nangam ak nangam ak nangam loolu lépp ci dogali borom bi tabaraka wa taala la bokk moo tax ab dogal ñaari xeet la ñaari xeeti dogal moo am bu njëkk bi mooy dogal bi jëm ci univers bi ni ko yàlla sàkke ak luwaayam ko utal boobu moom werante amu ci jullit ñëpp a ko nangu jullit ñëpp a xam ne yàlla rek a foofa mu ngoog waaye bu ko defee dogal boobu dana ëmbaale juddu dana ëmbaale dee dana ëmbaale d'accord dana ëmbaale mboolem liy wàcc jóge ko asamaan ci ay xéewal ak ay musiba yoo xam ne yii rek doomu aadama munu ca dara sabab lu mu ca dara defu ca dara amu ca benn kattan bu mu ci mën a soppandikoo doomu aadama bi juddu taaru taaram boobu dogalub yàlla la yàllaa ko dogal ci moom munu koo dindi doomu aadama bi juddu taxu koo góoro yu lool taxu koo jongama lool ndem jigéen la noonee mu mel yàllaa ko na binde ndax mën na ko soppi ab dogalub yàlla ci juddu njoole gudd bu baax ndax moo ko def ci juddu gàtt ndax moo gàttal boppam loolu lépp dogali yàlla subhanahu wa taala mu ngoog ah ci suñu boobal leen lene moo koy moo koy déterminé wax kañ lay am nu muy amee yàlla mooy wax ne ci réew sàngam ci bis sàngam ci waxtu sàngam nit ku mel nangam dana fa juddu loola sunu yoon nekku ca woowee xeetu dogal mun nu caa àgg loolu la du ahadis yi weesu doon jàngal moom la aaya ji di wax maa asaaba min musibatin fi lardi wala fi anfusikum illa fi kitaabin min qabli an nabra'aha inna dalika ala allah yasir dara du xew dara du dal ci musiba wala liy dal ci kaw ci biir suuf si ci kaw suuf si wala ci yéen nit ñi dara du jëkk naa koo bind ci lawxul maxfuus bind naa ko ci àlluwa ju mag ja bind nu mu war a tëdde door koo amal loolu yomb na yàlla lool yonent bi sallallahu alayhi wa sallama loolu mu wax Abdullah ibn Abbas ne ko na nga xam ne nit ñi ñëpp suñ daje woon bëgg laa jëriñ mënuñu laa jëriñ mukk lu dul njëriñ loo xam ne yàlla bindoon na ko ci yow suñ daje woon bëgg laa lor mënuñu laa lor mukk lu dul lor joo xam ne yàlla bindoon na ko ci yow yëkkateef na xalima yo doon bind dogal ya te itam kayit yi ko doon bind fendi na mu ngoog loolu mooy dogal bi subhanahu wa taala dogal boobu nag des ko war a gëm des ko war a nangu dee sa war